yaatu na lool am nag parce que tam te nii dañ ko fekkoon keroog bu ñu ko indee ci Boroxaan ak bi ñu ko indee ci Masalik te xam nañ ne yëmu foofu am na yeneen barab yu bari yoo ko yóbbu te yàlla rek tax nga yóbbu ko fa kon nag sunu borom moom nga xam ni moo tax nga yóbbu ko fa te xam na di tax nga jëf ko te moom rek moo am fay yàlla na fay lu kawe sa jor ndax jëf moom baax na ci waxtu wu nekk. baax na ci barab bu nekk waaye jamono yi ñu toll ci léegi nii yaakaar naa jaar nga ci buntu ku ko mas a xel ku ne ma gontal ko résultat ba ñu ngi koy tëg ñu koy tëg bët ba léegi fii ci àddina te bokk te demaguñu àlaxira kon na sa jëf ji ñu ngi ñu ngi ñaan mbokk ci ji sëriñ bi gën a nangu bokk ci ji gën a barkeel su borom dëgëral la ba nga di ko gën di man jamono yu nekk foo ko bëgg a yaatal ak noo ko bëgg a defee rek nga def ko nu ko sa njort te suñu ngi sant bu baax tey gërëm ndax lii yaakaar naa bu fekkoon ne yàlla may kàttan ñëpp def nañ ko kon euh, kenn dutum ranke dara ndax yow sa taxawaay rafet na lool ndax yàlla lii na nga ko waxoon ne maa ngi waajal Touba yaakaar bi ngeen kii ku ne xam ne ne waaj waajtaay mat na sëkk kon nag euh, sëñ bi nga ko jëflanteel dañ lay bàyyil nun nag sant ak seere ak gërëm ak ñaan man nañ ko waaye jëf ji nag moom yàlla ak sëñ bi tax nga jëf ko moom lañu bàyyil mu fay la boo ko sa njor jërëjëf ñu ngi sant di sant mboolem ñi nga àndal ñëpp di ñaan tam suñu borom faj mboolem sa aajo ak mboolem ñi àndal ñëpp mu faj seen aajo bamba woon a waa jéej bamba woon a waa jéere ñëw ñu dem tuur